Mustafa Idda ayam ay maamam yëpp ci ay almaami Abdul Qadir lañ bokkoon. Seydou Antumaani. ak Seydou Antumaani. Thierno Souleymane Baal. nee na Thierno Souleymane Baal. Abdul Karim ak Abdul min noon hannde mi nee na moom tey sant na yàlla mo ne li tax mu ne sant na yàlla jaami ko dafa demoon halwaar tawi Umar nee na fi Cheikh Umar Fuutiyu Taal bokk foofu la bokk wonde mi yetti nee na moom sant na yàlla minen ko min nee na moom ñoom ay maabo lañ yu Cheikh Umar Cheikh Umar tan min jibata nee na ñoom Cheikh Umar Fuutiyu rek la ñuy way yetti allah mi anndi nee sant na yàlla nag ci lim la xam ay otam nana nee na moom otoom mi ngi fee ci biti. a dee wane nee na a dee moo nekk ci otoom. nee na mi ngi taxaw ci buntu kër gi. Macky Sall hokki nee na Macky Sall moo ko may. nee na daf koo gis nii rek. nee na mu ne ko kundul kaa ñu dem pale mu may ko xaalis ba mu bari. mu may ko oto. Aliou Sall hajjunay. nee na Aliou Sall maire bu Géejawaay moo ko yóbbu Makka. kono foo ko Allah ina laaɗum e ettaani. lépp ngir yàlla ak yonent bi ak sa maam. Seydina Muhammad jettiima noon. nee na yow ñu ngi lay sant. neɗɗo won tan neɗɗo won nee na nit du nekk sëtu yonent bi. tawa ko mawni kiniiɗo. nee na fekk da ngaa rëy. o hollata yimɓe allah nee na doo wax nit ñi yàlla o hollata yimɓe Cheikh doo wax nit ñi Cheikh Tidiane hollal yimɓe tan ko adduna nee na da won nit ñi rek adduna gaddee xaalis tan indi leen xaalis rek gaddee xaalis tan indi leen xaalis rek ceerno jiɗɗo kaalis tigi rigi rigi nee na sëriñ bu bëgg xaalis dëgg dëgg dëgg a hokkata gooto nee na doo may kenn a ñamminta hay gooto doo lekkal kenn a yernata hay gooto doo naanal kenn a yurmuta ko hay gooto doo yërëm kenn sa wiyaama ka waliyu nee na bu ñu la waxee waliyu nga ko nee na loolu moom du dëgg wonaa gooto nee na loolu du dëgg jowiɗaa ko martoɓe gandam nee na dangaa <laughs> dangaa yor sa ba ak xam-xam kono sérif waaye Chérif. min na mi yettima nee na moom mi ngi lay sant. dañuy duubi capanɗe jeetati. nee na am na quatre-vingts ans. hay hunde manqué ra. nee na dara manqué wu ko. gallam na wucite police Guédiawaye. nee na këram mi ngi jàkkaarloog police bu Guédiawaye. commissaire gardar o AD o nee na commissaire ci boppam mooy garde oto moom AD bi. um ɗo e lii lépp yàlla ak yonent bi ak sa maam. Ceerno Basiru kadi. nee na Ceerno itam. o wimi hammadel nee na daf ko ne hammadel mbimi mu ne ko naam wona mboɗo yiɗi nee na ko man dama bëgg sirif wona mboɗo yiɗi nee na ko man dama bëgg sirif seerenɓe ɓe ko foo to ngari nee na sëriñ sépp suñu ñëwee sarifa ɓe fof ngari nee na sérif yëpp ñëw moo mu ne moom daf lay wax nga toog fii ci wetam moom Thierno Bachir ay goot dañaan nee na loolu kenn amu ko ci Thierno Bachir hoore nee na muy raay sa bopp bi omo moomu ni yaahaaw nee na muy raay sa bopp bi yaahaaw nee na pour nga wax nee na loolu yombul. nee na li yàlla dafa am lu yàlla def ci yow. nee na mi ngi ñaan yàlla ak yonent bi. ak Cheikh Tidiane. nee na nga am té ñaari téeméeri at ak wër. nee na ñun ñëpp ñu fekke. nee na yàlla moom la ñuy ñaan mooy maye. Ceerno Seydou Nourou Tall nee na. nee na ndax xam ngeen nit aljanna. bi min ganda ñu ne ko xamuñu o net aljannaji nee na nitu aljanna comme ruuji fo jiɗi nee na ruux yépp a koy bëgg ay joni amin mine fot mi nee nii ñëpp a ngi jàkkaarloo kalanooɗo joni nee na am na ku doon wax léegi mi mbiya tampi nee nit ñi dañuy ki ñun sonn nañ amin jogii haaju dañoo am ay aaju min goppuma ɗo ñu bàyyi la fi daal di dem wonnoo ko an neɗɗo aljannaji nee na ndax yàlla xam na ne yow nitu aljanna nga ko dañjaa fof ñammintaa ko yimɓe nee na loo am ay nit nga koy jox dañjaa fof dokkataa ko yimɓe loo am ay nit nga koy jox dañjaa fof mbeltintaa ko yimɓe nee loo am neexalee ko doomu aadama yi so wonaa no ngartuɗaa ko taane nee na bu fekkoonte ne ñëwaatoo sama maam sallallahu alayhi wa sallam. nee na da ngay nekk Paris rek. jaa Espagne. ndeg dem Espagne. jaa di dem Dubai. jaa Makkatal Mukarram. dem Makka. coodaatoon galle. nee na nga jënd fay kër. nga def lu la neex. wonnoo wonnoo neɗɗo fof njiɗan ɗaa ɗum ko ndaxte xam nga ne nit ñëpp da nga leen a yéene aljanna. e ak jàmm ay joono ndokkuɗa min léegi léegi li ngi ñu fi may min mbiyannoom tax astafurlah astafurlah nee na nee moom ana wax astafurlah rek astafurlah rek sari Serif daal jërëjëf yàlla weltine yàlla na rek yàlla na ba nga am ay at yu bëri. marta boo ɓeydoo marta bi bu gën a yaatu. an sa dañi. nee na yow boo amee. a wona ɓellal nee na yow daal doo doo ki nga xamante ne dañuy ñëw rek jaar sa kaw jàll. ala ala be be ɓellal gajjal gajjal. ɓellal gajjal. ndax gajjal su amee. non nii lay def. waaw te kenn du am. waaw nee na nee nee na nee na yow boo amee. doo ci tëdd rek. ne yow rek yaa am. nee na yow boo amee rek boo amee rek ñëpp am. nee na yéen a ngi ñëpp jàmm. man kontaan naa. nee na kontaan na. léegi noonu nekkal suma xarit. léegi dafa bëgg nga nekk xaritam. xale képp ki nga xamante ne daal dee na ci yéen diggante. maanaam nee na daal nekkal xarit xarit ngeen dafa bëgg daal ngeen ah, jàppante nekk xarit. nee na ngeen nee na ngeen nekk nga nekk fi rek. nee na maanaam. dëkk bi léegi dafa dundaat koñ bi konumayen so keewal nee na ñu mel ni yow suñu bëri woon hay goto wonta nee na kenn du nekk yéeféer nii taane nee na nii la sallallahu alayhi wa meloon mi yeeyi mi yeeyi nee na moom dem na makka ñetti yoon foo mi nawet nee na lépp dañ koy yóbbu nee na moom mosul dagg bi dem nee na moom mosul liggéey nee na ay oto ma ngi gaare nee na ay këram a ngi fi nee na ay nit yu baax ñoo ko may nee na moom ñeeño la rek nee na ay nit rek ñoo koy may nee na nii la sa maam may meloon nee na ni sa maam mel rek ci moom nga topp nee na moom buur la komi laamɗo moom maanaam nee na nit ne buur la komi moƴƴo walla ne dama baax komi ɓii walla doomu ko baax laa wonde ɗum ɓuri nee na nga nekk ko moo gën nga koy wax artitaane yo juul nee na ñibbi si nga sallallahu alayhi wa sallam nee na jërëjëf yàlla na def jàmm yaa baax nee kundul yàlla seede na xarit gi am na bu yàgg soppe gi am na bu yàgg ba ma la njëkkee gis ziyaare Louga man maa waxoon Aboubakari Aaj Aboubakari Aaj maa ko waxoon na la fexe ba gis la laaj la sa numéro portable jël ko maa ko ko yónni woon ma ne ko ndax dama ko sopp dama ko bëgg ndax dafa bëgg sama sëriñ Cerno Bachiru ba ma xam ko moo tax ma sopp la maa la gën a sopp fuuf yàlla xam na ko waaw. Mhm. Mhm. waaw. al mhm. ko Cerno Bachiru ormal ko Cerno Madani ormal ko ñépp di ay xaritam ah waaye bu ma la ormalu tooñ waaw maa la bëgg <laughs> maa la bëgg ba yàlla xam na ne maa la bëgg yàlla seede na ko jërëjëf kon ñu jox ustaz Sidi Ahmed na lay am déet waaw laa ilaha illallah bi ñeent yoon lay daanoo kon balaas la bu mu teg waaw buñ ci àndoon nii dañu naan laa ilaha illallah laa ilaha gis nga ñeent yi mu ñu jox fi mu taxawee boo àggee ci allah allah ba balaas boobu ba léegi moom ngay jëlaat allah allah allah allah gis nga kaat yi taxawaat neel cas bismillaahi rahmaan rahim kaat araf la am bismillaahi rahmaani rahiimi mu taxawee fa ah. pour jàmm duggaale nekk salaamun xawlan min rabbi rahim taxaw ci ñeenti ñeenti kalima salaamun xawlan min rabbi rahiimi li mu ñu jox lu rëy la hmm. xanaa kay ku bëgg da ngay lu bari kay sa xel ci lay léjee waaye ndigal ndigal moo gën zikkar lu bari ndigal fu mu dugg rek gaarante dugg na te gaarante bu duggee rek borom lu mu def mu tàbbi ci loxol rasuulillaahi wax dëgg yàlla kilifa gu baax la li mu yéene boppam rek la yéene ay njabootam nit dem na ci kilifa ba tàyyi te joxu ko lu koy njariñ Sénégal la ñu dëkk ba tàyyi te joxu la lu lay njariñ wala kay mu mu mu jël tur bu muy essayé ci yow bu jàllee mu door a jël waaw ne la wirdil bii ba xam boo ko wirdee màndi rek mu ne ah faji ji leen ko nanguwaat turam ndànk toog su ko defee nga delluwaat li suñu maam alxaaji Papa Malick si doon wax waa ji jëlam turam di wirdi ci néeg bi di wirdi di wirdi ba mbott bi na cëpp ci wetam sëriñ Papa Malick ne muy yeggali rek di wér di rek mbott may fonki di yokkeeku muy wér di mbott may yokkeeku ba fees ci néeg bi moom it mu am fit di continuer rek mbott mi dem ba mu dese koñ gi mu toog ci rokk bi mbott mi ngaang ne ko loo bëgg mu ne ko xanaa nga ñepp <laughs> waaw boobu nag balaa mu la ciy dam nga yem ci li sanga bi joxe baaba yàlla na yàlla fay la natu u ilahana fil maadi wal mustaqbal umran tawilan bi jaahi sayiduna muhammad yal na la ko yàlla defal wax dëgg yàlla kii sax la sax bu rëy rëy la ci ñoom sax bu man dey xawma li tax mu woo ma pour ma fekkee jotaay bi waaye mbégte bi ma ci am ak yokkute ko bi ma ci am maa ko yëg waaw ba mu doon wax am na lu ma doon yëg man waaw man waxuma joxe zikkar rek waaye tur baatam rek bu ma ko déggee dafa am lu muy def ci man kooku moom yàllaa ko def kooku moom yàllaa ko def baatam rek ma dégg ko muy wax dafay mel ni zikkar ci man wala jàkkaaroog moom di ko xool rek dafay mel ni zikkar ci ñun ndax comme rasulillahi waaw ku jàng bunt ba la ci xilaasu zahab li ci Maodo wax Seyd Seyduna Muhammad boo ko comparé ak jëmmam mu ànd ci rafetaay ca na mu mel ca jikkam ya ca tedda nga ba min nuuri irniinihi xat zanna ida taajjala an qad qaada min samami wa an at ajul ay ak xalu xul asiilu xat day ni arqul wacci kat tuwami yooyu yëpp daf cay ànd sawaaxul batni wa sadri Seydi Aj Maalik nee na yonante bi ku bëgg xam sëtam sax xoolal ni mu mel biir ba ak dënn ba mooy yem benn du jiitu moroomam sawaa'ul batri wa sadri la Seydi Hadji Malick wax mu ne mbagg ya dafay jóg ci ginnaaw looloo tax du ñu gaaw a tilimal yére ndax mbagg yay bu yére ba yére ba ci kanam du am fu muy tege dafay wàcc ay dara yàlla na yàlla fay la man nekk naa tàmbali di wax de faaw ma wax de yàlla na yàlla fay la tabaarkal la tabaarkal la euh, gis nga gis nga yàlla na yàlla fay la yàlla na yàlla fay la yàlla na yàlla fay la moom lañ koy wan. moom lañ koy wan moom lañ koy wan wan xam nga koy wax ci moom mu gën laa xam boppam yow miy wax dangay xam li ngay wax te moom moo ñu gën a xam boppam téeméeri junni yoon te gis nga am na lu muy faral di wax léeg-léeg ku ci sa xel ñox ñoxi rek dawal ci xilaasu zahab Seydi Hadj Malick leeral la ko lu ma bëgg ci sama xol yàlla def wax na ko ba tàyyi mu ne bu may xalaat mbir yàlla di def maamam sayyiduna Muhammad noon lay Seydi Hadj Malick wax ni noonu la meloon wa ma daa qattu la Maodo wax mu ne yonent bi mësul ñaan wa ma daa qattu illa kaana daawatuhu mujaabatan duuna tardidin nekk wala atami Seydi Hadj Malick nee na yonent bi da daan yëkkate ay loxoom di waaja a wax allahuma yàlla ne ko bankal def may rusloo nangu naa sànkal daf may rusloo nangu naa wama daa mustajaan xattu mukk sayyiduna muhammad illaa lu dul kaana nekk na da'watuhu ñaan ba mu naroon a def mu xelmate ko ci xolam mu jaabatan yàlla ne nangu naa duuna tardidin yàlla nee na amul déng-déngal wala atamit du caagun njirim njirim lu xam nga koy ñaan di nga jirim jirim yërëmtalu mun a du dal yonent bi lu mu xalaat ma def ku donn donnu waale ay dara yàlla na yàlla fay la ci barke Sayyiduna Muhammad ñun yow rek la ñu am man taluma keneen ah man léeg-léeg sax duma duma duma baaba bàyyi rek ma wax gis nga yow yow yow yow da dimbali ñëpp da nga dimbali ñëpp da dimbali ñëpp ci biir ak ci biti wallahi te lu mu la wax rek nga duur ci baaraam yàlla na yàlla fay la salaamualeykum wa rahmatullahi taala taalibe taalibe bu Cheikhul Hadj Abdoul kon nag kon waxuma nag jotiwuma sax ca Seydi Hadji Malick man jotiwuma ca Serigne Babacar Sy jotiwuma massa ca yonent bi wala Cheikh Seydi Ahmed Tidiane man maa ngi ci si Abdou rek moom moo joti ca ñooña man maa ngi ci moom waaw ah, ak Thierno Bachirou Mountaga Cheikh Al Hadj eh, kon nag tabaarakallaahu su ko defee yii ñuy wax waxuñ ko ngir dara dañ koy wax rek ngir dimbale njaboot loolu rek lañ ci jublu wax ko ngir wane xam wala wanewu yooyu yëpp dépassé nañ ko ah, dépassé nañ ko dañ ko wax rek ngir dimbale njaboot loolu rek lañ ci jublu ndax yàlla bu jëlee ay jaam boole ak ñoom la nga am danga leen cay dimbale ñoom it lañ am ñu dimbale la ca lii rek la te li ma wax kenn mënu ko dindi sëñ Touba wax na ko alaaji Malick Seydi Hadj wax na ko Cheikh na Cheikh Saad bu waxee noppi Cheikh Abdal Qadir Jeylaani waxee noppi mag ñépp maam mbuukunte waxee noppi mag ñépp unanimité yonent bi lañ xam yàlla ci boppam li mu wax yonent bi kenn du ko ko wax wa kaana fadlullahi alayka azima wax gën na rëy loolu wa kaana fadlullahi alayka azima yàlla ne ko xool naa xool xool xool xool man yàlla mi la bind waaye yëg naa man yàlla ne sama ngëneel ci yow rëy na yàlla ni mu bëggee yonent bi kenn mënu ko bëggee yonent bi sax parce que ñun ñii dañ ko bëgg ndax suñu intérêt waaye yàlla ban intérêt la am ci yonent bi damay laaj yàlla ban intere la war a am ci yonent bi amul ci yonent bi benn intérêt parce que moo ko bind wëlbati ku bind ko ba amut ci moom bëgg ko bi amut ci moom sago alam nashrah laka sadrak yàlla aaye yim dóor yonent bi ku mu ko dóor nga xam ne kuñ ko dóoroon nga xam ne bëgg nañ la léegi kundul lu mu wax président Macky Sall la ko may oto AD bi sax dindi wuñ ko jeex na mu oto baa ngi nii gaare waaw cofeel bu président Macky Sall am ci moom moo tax mu may ko oto bi maire Alioune Sall yóbbu ko Makka di rakkab moom lu mu ko amee ci barke ay sëriñam ci barke bëgg gi mu bëgg ay sëriñam ak bëgg gi mu bëgg yonent bi kon wa kaana fadlullahi alayka azima alam nashrah laka sadrak wa kaana fadlullahi alayka azima wa wada'na anka wizrak wa kaana fadlullahi alayka azima alladi anqada dahrak wa kaana fadlullahi alayka azima wa rafaana laka zikrak ni ma fiiree man yàlla beneen inna allaha la yushriku an an yushraka bihi wa yaghfiru ma duna zalika liman yasha inna allaha la yaghfiru an yushraka bihi wa yaghfiru ma duna zalika liman yasha yàlla ni mu bañee ku ko bokkaale ku ko dendale dara yàlla ni mu fiire ni ne bi war a fa naa la ka ma tudd tudd ak li may fiir fiir bëgguma ku ma jege waaye yow ñëwal ku ma tudd sax tudd la ma pes ku ma tudd te bëgguma ku ma tudd te duma ko reconnaître war naa la ka laa ilaha illallah muhammadu rasulullah ba bunti àjjana moom la fa yàlla bind laa ilaha illallah muhammadu rasulullah bu rologu àjjana caabi ya laa ilaha illallah muhammadu rasulullah moo ca ne laa wax de bu rolog la min sabar jadd te laa ilaha illallah muhammadu rasulullah moo ca ne ngege ya ñuy teg suñ bopp ca àjjana laa ilaha illallah muhammadu rasulullah moo ca juróomi maqaam yoo xam ne yépp laa ilaha illallah muhammadu moo ca nekk ca biir àjjana muy muy muy julli waxtu yi juróom ak ponk lislaam juróom lépp yàlla pour foo geesu gis yonent <laughs> loolu la ci yàlla jublu foo geesu gis yonent bi xam ne du yow kii la fi indi rek leel la Malick Diop waxoon <laughs> ndaw sañ doon tuddal mu ñëw rii ju ñetti yoon ne eh sama imaam sama bàjjen nee na ngeen réglé <laughs> te imaam waroon a tudd doom ñi ko waaw nee dañoo toog ba deux kenn tudd daanaka imaam ne waaw dañ tudd doom ci ma laaj Malick nee na ma ne ko imaam tudd sunna la rek boo kii nga dem yow ñu tudd mu ne déedéet lii du nekkatul sunna mu ne tuut ndekete Malick Diop boo xam moo garaaw waxi booy bàndi la nee na ndaw si borom lam yu dëgër la boroom yam lam yu diis la ndekete bàjjen bi la ñuy xaar ndar la war a jóge te bu ñëwul kenn du tudd mu ne bàjjen bi téléphoné yónni kam yónni di xale bu jigéen boo xam ne mu nga mel na ko neex woddoo sër bu weex bu bu dang ñëw rii ñetti yoon ne leen eh, imaam sama bàjjen nee na ngeen ngeen regle mu ngi ci yoon mu ngi ñëw waaw ah nee na ñu imaam ne ko lii loo ci xam mu ne ko xanaa regle rek ah nee na ñu tox toog tuuti rek bàjjan bi si ne na ñoom ñi jàng kaamil bi mosu ñu am loolu mille la yëkkati jox leen mu ne imaam ne ko nañ ñi réglé nga ndar-ndar yi dañoo mën teraanga ah, mu ne ko imaam ne ko baax nag nañ ñi rek le waaw ah, nañ ñi rek le laa wax ah, yonent bi kenn du moom li ko yàlla wax waxu ko kenn kon nañ yem ci yonent bi isaa jaa nasrullahi wal fatxu wa raayta boo yemee ci yonent bi nasrullahi ñëw fatxu naas yi ñëw fatxu laahi ñëw wa raayta naas nit ñi bëgg la yadxuluuna ñu lay bëgg di buñ ma tax a wax balaa ñu naan yuxarifuuna al kalima an mawaadiihi du loolu de yuxarifuuna al kalima an mawaadiihi li bokk ci ah, alquran pirim dëgg dëgg kenn xam ko wa maa yaalamu taawilahu illa allah waaye nag wa raasixuuna fi l ilm yaquluuna amanna bihi kullun min indi rabbina wa maa yazakkaru illa ulul albaab wa maa yaalamu taawilahu illa allah dëgg la waaye waraasixuuna fi l ilm yaquluuna amanna bihi kullun min indi rabbina waaye nag wa maa yadakkaru illa ulul albaab alam nashrah iza jaa wadduha wa layli yëpp yonent bi yëpp sallallahu alayhi wa sallam alxuraan baqara ba naa si lépp yonent bi moo tax yàlla wax ñu ko law anzalna hada alquran ala jabalin du dëgg la raaytahu xaashian mutasaddian min xashiatillah law anzalna hada alquran ala jabalin la raaytahu xaashian mutasaddian min xashiatillah moo tax wa tilka lamsaalu jël ko nadribuha linnaasi lu tax laallahum yatafakkaruun mu doon laa indil tur ya yonent bi ñëwaatu ne na la bul sonn ci tur yi waajaa ngi nii ma jeexalee ko foofu dama bari wax law anzalna su ma wàccee woon haza al al quran ji ala jabalin ci montagne bi gën a rëy ci àddina la raaytahu di nga gis montagne bi xaashi an mu mu toj éclaté mu tasaddi an nekk poussière di naaw min xasiyatillahi ndax ragal ma man yàlla mu ne kon montagne àttanu ko ak li muy rëy rëy waaye sama dënn ngóor si àttan na ko sama dënn ngóor si moo raw montagne te gën a dëgër montagne maa ko ne cëpp ci dënnam bi te kenn mënu ci dara alam nashrah laka sadrak iqra bismi rabbik alladi xalaq lu tax xalaqal insaana min alaq ñoo doyee di waaye yow bokkoo ci iqra wa rabbukal akram maa la teral boo ma jàngee tedd alladi allama bil xalam ku xam yonent bi xam li bind yépp allamal insaana maa lam yàlla maa xamal nit lu xamuloon maa ko xamal rasulullah jeex na yonent bee fi dara newu fi rekk a fi moom rekk a fi rasulullaay rekk a fi ne alquran yëpp yonent bi alquran ba mu jeex yonent bi moo tax yàlla wax ko moo tax na mu ne xaasiyat mutasaddiyan min xaasiyatillah mu ne wa tilkal amsal dama la doon melaleel rek melal yi ma la doon melal nadribuha linaasi dama ko dee si ñeel leen yéen nit ñi rek laallahum ndax yéen ndax ñoom yatafakkaru na ñu mën a xalaat mbiru yonent bi dora huwa laahu lazi boo xamul ku yónnanti mooy buur bi nga xam ne huwa allahu lazi laa ilaha déet benn buur bu yeyoo jaamu jaamu ga di jëriñ ka koy jaamu ñàkk daa jaa ñàkk gaa jaamu di lor ca ka ko ñàkk jaamu illaa huwa ku dun moom yàlla aalimul xaybi moo xam li fàddu yépp wa shahaadati ak li teew moo xam li nëbbu ak li teew huwa moom arrahmaanu rahim te bokk na ci turo yi yonent bi raufun rahim laqad jaakum rasulun min anfusikum azizun alayhi ma anittum harisun alaykum bil muminina wax gën naa réyati ko bil muminina raufun rahimun moo tax bu mu la saf nag fa in tawallaw buñ la xamut ba julliwuñ ci yow fa qul hasbi allah laa ilaha illa huwa alayhi tawakkaltu wa huwa rabbul arshil azim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 wa radiyallahu an cheikhuna ahmada tijaani sharif cheikhul shuyuuxi xutbul awliyaay asalaamaaleykum wa rahmatullah sang yi ñu ngi leen di nuyu di leen ziyaar di leen baal wàq di leen baal tey ñaan yàlla ci kàttanam subhanahu wa taala ak yërmandeem yàlla nañu bur yàlla boole jéggal yàlla nañu yàlla nangul suñu tuub ak suñuy jaamu waa di yëkkati kàddu yi ci ndigal jàng nañ semaine dernière ci moom mu ne sunu maam dabaax radiyallahu taala anhu Euh, jàngal na sunu bàyyi sunu maam Cerno Bachir ne ko jëfe ndigal moo ëpp ngëneel wor ma wooy joxe ba tax na kàddu yi dañ ko yëkkati ci ndigal di leen seddal rek ni li sang bi wax léegi ak li ngeen di yëkk yéen ñépp mu di cofeel ci shérif waaw ah, ñun ñoo leen ko ëppale ñun ñi nekk extérieur ñoo leen ko ëppale bu ngeen bëggee ñu làng bëre xam nga lu tax <laughs> yéen yàlla daf leen dimbali ngeen mun di jàkkaarlook moom saa yu fi teewee ñun dañuy wër YouTube di dem Chérif Dabakh di déglu waxtaanu xadara bi ajuma bu jàllee rek samedi matin li ñu njëkk seet bu ñu jógee mooy xool démb waxtaan bi comme tey ji lan la woon di ko topp depuis Coli Posto yàgg na avant Chérif baax wax na dëgg bi mu ñëwee Poitiers la dernière fois man si laa jël tarixa bi 1991 ba bi may jël tarixa bi du wasifa du lazim du lenn luy farata ci tarixa bi lu ma daawul def ma doon joxe exemple ni man dafa mel ni dama nekk un joueur de foot bu jënd mayo jënd godaas jënd lépp dugg ci ginnaaw Marseille di entraîner ak ñoom te bokkoo ci équipe bi amoo licence kenn convoqué wu la ngay entraîné ak ñoom mais ku entraîné 30 ans bés boo duggee di nga mun football <laughs> mais xam nga lu tax wa ma tashauna illa an yasha allah rabbul alamin man sama bunt ci tarixa cheikh chérif la woon mu jàngal ñu sunu maam Cheikh Ahmed Tidiane si al Maktoum doon wax hasard bu ñu muusee ba muus nañ ko boole ci turu yàlla yi tubaab moo dem ba xamatul nu mu koy tuddee yenn nii mu tuddee ko hasard mais hasard amul ndax man dama jël sama tànk plusieurs fois dem fëgg ay buntu kilifa pour jël tarixa bi saa yu ma fëggee du tijjeeku yàgg na des années et des années ba ñaari exemple laa ko joxoon ma monsieur benn bi dafa am benn kilifa boo xam ne dama ñëw ñuy xadara comme nii ma dugg si ne ko dama ko bugg jël mun a xam nga charte yi ñu waxtaan su mu ne maay ca bu ñu jullee timis ba pare bu ñu sëlmalee rek nga jël ko ñu wasifa bi ñuy def deuxième taaya bi muy ñetteelu rakkaa timis bi gis nañ am na ñetti dugg si taxaw ñu sëlmal rek ñu am lu ñu ko déey ñu déey ko nekk waa soxnaam dafa génn àdduna mu këpp ay dàllam jug dem ma toog di xaar ba tey maa ngi xaar mu jox ma ko moom ma waxoon toogal ma jox la ko ma nettali ko shérif mu indil ma dafa am ñoo xam ne boo dendeek ñoom loolu leen munti wax yàlla lañ lay indil ma nettali ko shérif mu indil ma wax joo xam ni expliqué na ma ko pendant quinze minutes comprendre ma fu muy waxee mu ne waajooju <laughs> bref <laughs> <laughs> man ma waxal ko sama bopp bi ma ko waxee dama ne ko yàlla jaa des yàlla ja moo des ñu baal ma xaq ñu baal ma xaq maa ngi koy jéggalu ci waxin wi waaye dëgg la de daf dul neex ci digg moo tax ma ne ñu baal ma xaq maa ngi koy jéggul waaye damay wax toujours ne ñi mën le ñi <laughs> ñi yegg ci yàlla piir ñi ragal yàlla piir xaqa tuqaatihi boo leen sóoraloon fukki kiloy ceeb yuñ togg normal mënuñ koo lekk ci senegal laa wax wattaqullaaha xaqa tuqaatihi boo leen sóoraloon fukki ceeb fukki kilo ceeb mënuñ ko lekk man maa la ko wax boo leen dajalee ñoom ñëpp teg fukki kilo ceeb yuñ togg normal ne lekk leen du jeex ah xaw ma waaye nii daal moom xam naa ko te d'accord naa ñuy examen kii li wax tariixa bi la doon ñaan ñu dey ko ne soxnaam fàtte génn naa dina mu fàtte ko dem yàlla jaa des Cheikhul Hadji Abdoul Aziz mi yàlla ji mat sëkk mu bokk ci ñi yàlla mat sëkk te wàññeeku wut ak ñi mel ni moom lii may wax ñépp digg nañ ma wax ko plusieurs fois ku am lu la ci lëndëm demal ba ci sëriñ Babacar Saaxo di doomu Baye El Hadj Ibrahima Saaxo ñu gën koo miinee ci mbay Saaxo muy faral di ànd ak sëriñ Maodo bu Cheikhul Hadj Abdoul Aziz Dabakh di taawam moo am tudd ñëw wax ko góor gi sëñ Abdu sëñ Abdu ne ko maa koy tudd si heure mu wax ko heure ci fajar gi biñ waree ñëw bër set pour mu war a ñëw tudd si doom ñi ci fajar gi la Cerno Saidu Nuuru doomam génn àddina Cerno Saidu Nuuru la tuddee woon alaaji Cerno Saidu Nuuru moo topp ci sëriñ Maodo ñoo bokk ndey ak baay mu magee sëriñ ab du tuuti pour mu leer moo jur sëriñ Moustapha bi ma leen booleel yenn waa daayira cité Junqob Daawuda Jenn nekk président bi sëñ Moustapha si moo ko jur Cerno Saidu Nuur moo ko jur wax kañ mu ngokk kii mooy Abdou Aziz dégg léegi mbay saaxo yëg xibaar bi sëriñ Babacar saaxo yëg xibaar bi gàddu liir bi indil ko sëñ Abdou ci pom bi këram alaaji Abdou ne ko mbay Babacar lii nag lu xew mu ne ko dama yëg xibaar bi ne Thierno Saïdou moo dem ma doon ñaan rek nga tudd liir bi ma delloo ko mu ne ko Babacar alxurru xurrun maa lam yatakallam gor gor la fekk waxut dama noon maa koy tudd si delloo ko ca kër ga ma ñëw fekk la ca kër ga tudd ko carno mu dem lu mu jotee tudd sa doom ki yóbbu carno indi sa doom imaanun kaamil sëñ Babacar yóbbuwaat liir bi heure ba jot mu dem tudd ko toog fa di waxtaan bi ba di passé mu yónnee Tiwaawan na nañ jullee Cerno Seydu denc ko ca ëllëg sa la door a dem Tiwaawan te moo topp ci taawam lii rek laa ci seede woon